salaamaaleykum mbokk yi ànd ak ñun ci seen euh, portail Baol Média ñu ànd ak yéen ci déclaration boo xam ne ki koy def jamono bi mooy euh, Saliou Dione dañu ànd ñu déglandoo ko. asalaamaaleykum kon ojo bi maa ngi ko jagleel mbokki Adja Sarr euh, di leen wax ni seen taxawaay rafet na ndax dëgg moo ñor ci ni ñu waxee ba léegi témoignage yi ñu def yépp. wane na ni Adja moom eh, léppam ay erreur la ak i njuumte donc ak dëng la waaye lii nga xam mooy mbiram ak Sonko dañ ko ciy dugal waaye ñoom li war mooy taxaw leeral mooy suñu doom doonte dëng na doonte jubul doonte eh, liñ ko defloo ay complot la ab xaalis la ak ger la ay tappale la waaye du tax ñu bàyyi suñu doom ndax suñu deret la li tax du duñu bàyyi suñu doom ndax suñu deret la mooy euh, ñu ko faxas ci benn na ba mbokk gi dañ donc dañ koy dimbali waaye lañ koy dimbalee mooy duñu ànd ak moom ci nafeq duñu ànd ak moom ci ay tappale waaye nañ ko dimbali ci aar ko ci aar ko mooy génn ko ci loxoy état nañu taxaw wax ak ni ko wóoluwul ñeen ci suñu doom ci wér gi yaramam wóoluwul ñeen ci suñu doom ci ger gi ngeen continuer di ko def ak waxloo ak di ko manipuler waaye wóoluwuñ leen suñu doom ndax wéet na te soxla na ay mbokkam kon jox leen ñu suñu doom nañ jël seen ay responsabilité xam ni ayda du mooy aji lu mu bon bon lu mu mën di mel seen mbokk la seenu xeet la nañ ko dimbalee lenn mooy jël ko sang ba mu set trace ba mu set boot seen doom rogante ko jëm ko jubbanti te bañ ko bàyyi ci loxoy état bi nga xam ne doo koy manipuler ngir di liquider benn adversaire politique wu donc yaakaar naa ne loolu su amee euh, dina dimbali Adja dina dimbali sénégalais yi dina dimbali justice te it ëllëg seen histoire dina raconté ne ñoom kat ba Sénégal naree dëng ba la Sénégal naree weng jël nañ seen ay responsabilité téye seen mbokk waaye it ànd ak dëgg ànd dëgg mooy fësal ni lii la ci ñoom ànduñu tey ànduñu ci ëllëg maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax cay euh, rafetlu seen taxawaay di leen wax ne sax leen ci dëgg gi foofu ngeen nekk foofu la